yàlla daf ñuy wërsëgal subhanahu wa taala ci euh, benn daje boo xam ne nii incha allah ñoo ngi ko yaakaar ci daje xam-xam yi ak euh, sunu mbokk docteur Mouhamad Lo boo xam ni daanaka bari na ñu bari ci yéen ñuy jóge fii di fekke ji bind yi ñuy joxe daarul istiqaama ca kër Ibrahim Khalil wala dajeeg moom ci conférence bi doonte ne dana am ñoo xam ne tey lañ ko mës a gis alakulin mi ngi nu tey dafa ñëw ngir ziyaar fi mbokk jullit ñi dafa ñëw it ngir fàtte leen te ak ñoom bind bi mu jëlum tey xam ngeen yéen ñëpp suñ borom subhanahu daf ñoo woo ci bis boo xam ne laa rey ba fii bis boo xam ni suñ fa demee fokk am na loo xam ne nii lañ fay yóbbu ca la suñ teraanga di aju wala suñ texe di xatta añ makka gi rek suñ borom bi mu ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa yóbbalu leen yóbbal bi gën mooy ragal yàlla kon nag ana koo xam ne nii yaa ngi jëm bi si penc di war a dajeeg sa borom subhanahu wa foo xam ni kërug fay la dootul kërug liggéey moo tax tomb bi mu jëloon tey moom mooy yóbbalub julit mooy zaadul muslim yóbbalub julit ci bis bu màgg boobu nga xam ni te la ñu jëm war faa dajeeg suñu borom duñ ci guddal dañ koy bàyyi rek incha allah mu dugg ak yéen ci waxtaan bi ñu ngi ñaan rek yàlla na yàlla subhanahu wa taala dëgëral ko te dëppale ko ak ngërëmam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 Eh, ni ko mbokk mi waxe kon bind bu gàtt bii dañ koo tënk def xolu waxtaan wi mu nekk zaadu lmuslimi saair ala darbi alhuda wa nuur yóbbalu jullit bi nga xam ne dafa jóg fas yéene jëm ci njub xam ngeen ni mbokk mi ni mu ko waxe moo di yóbbalub jullit moo di ragal sunu borom tabaraka wa taala ak taqwa taqwa nag waxin wu xóot la wu yaatu la ci kàllaam ak arab wu yaatu la ci alquranul karim ba tax na buñ ko tënkee ci ragal yàlla rek du mat waaye day am yu baree bari yoo xam ne ñooy àndandoo mu door a firiku kon moo tax tomb yi nga xam ne moom lañ fas yéene tudd mu doon yóbbal bu ab jullit di yóbbuloo yoon wi mu jaar jëm àllaaxira moo xam yoon wu gudd la su fekkee gudd na fan ci ni ko nit ñi di tudde ne fan moom kenn gudd ko ndax koo xam ne doomu aadama gannaaw bu dundee téeméeri at ñi di ko yéem loolu lu gàtt la kon kenn guddul fan rawatina nag foo xam ne danga nga fay jóge dem foo xam ne duutoo fa jóg ba mukk ba faw faaw lu rëy rëy rëy la loo xam ne xaw ma nit ñi bàyyi nañ ci xalaatam déet waaye boo ko méngalee ak loo xam ne ku fa am téeméeri at ñu ne yàgg na fi nga méngale ko faaw kon dangay daal di yëg ne dunduk àdduna moom ndekete du dara kon fan yooyu nga fi am boroom bi tabaraka wa bind la am lu mu bëgg ci yow mu di nga jaamu ko jëfandikoo taqwa muy yóbbal bii nuy waxtaane kon yooyu nu mu mën a toll dafa jaadu am loo yóbbuloo ngir mu mën a baax yooyu tomb la ci jiitu moo di al ixlaas fi l qawli wal amal sellal sa jëf ak sawax wax na sell kooku mooy yóbbal bu njëkk bi al ixlaas nag chartun min shuruti qabuli al qawli wal amal ngir sa jaamu yàlla mën a baax faw day ànd ak sell bu yàlla taxut rek yàlla du ko nangu lañu jublu nag ci sell ga moo di li ngay def nga seet ci sa boroom la nga ci jublu doon la nga fas yéene fayu àllaaxira loolu na tax ngay jëf jëf jum mën a doon ci àdduna borom bi tabaraka wa taala moo wax ne wa ma umiru illa li yacbudu allaha muxlisina lahu diina xunafa yàlla ne digaluma leen lu dul ngeen sellal diine ji boole ko ak mokk fa kanam seen borom tabaraka wa taala wa ma umiru illa li yacbudu allah digaluma leen lu dul ñu jaamu yàlla boole ko sellal ko boole ko ak mokk fi seen kanam borom loolu rek mooy ndigalul sa borom tabaraka wa taala fii ci kaw suuf waxaat ne man kaana yuridu xarsa al axirati nazid lahu fi xarsi képp koo xam ne li ngay jëf da nga ciy jublu mbayum alaxira mbay la ko sun borom tudde jëf ji ngay jëf da ngay bay bu alaxira nga góob jëriñu mu ne koo xam ne sa mbay mi ngay bay fii ci àdduna alaxira nga ci jublu borom bi nee na nazid lahu fi xarsi li muy bay nee na danañ ko ko dollil da dañ ko ko yokkal ni ngay gisee nit ki di bay ci àdduna ji wenn fepp aw gub ñoree ca wenn gub wu nekk yor ci ay tepp loo xam ne dana ëpp téeméer nee na su fekkee ne def nga ak jaamu yàlla moom suñu borom tabaraka wa taala noonu la la koy dollile su fekkee ne sell gi am na ci nag parce que léegi li mu ko waxe man kaana yuridu xarsal axira nga xam ne li ngay jëf alaxira nga ci jublu nee na kooku dan ko koy yokkal fulal ko ko ba mu bari ndax alxasana bi asri amsaaliha li ci gën a néew ci lu baax loo def mooy dañ la ci fay fukk loolu mooy li gën a néew waaye nag borom bi tabaraka wa taala mën na ko ful ba foo xam ne moom rek moo xam ne muy toll nazid lahu fi xabsihi yëmut fenn danañ ko ko dollil wa man kaana yuridu xarsa dunia nutihi minha wa ma lahu fi l axirati min nasib koo xam ne nag nee na li muy jëf àdduna képp la ci jublu nee na addunaam jooju danañ ko ca jox danañu ko ca jox noot yi minha waaye adduna moom kenn mënta jot lépp loo am am ak loo bari bari boo xoolee gis ci sa ku la ëppale kon dañ la cee jox rek dañ la cee mosal waaye nee na nag ginnaaw nga xam ne adduna yi kese ko taxoon a jóg moo ko tax di jëf wa ma lahu fi l axirati min nasib nee na alaxira du fa am benn cër wala yaatu billah kon ndeketi jubluwaay bi mooy la am solo li ngay def bor alaxira tax nga di ko def kooku foofu la mbir ma nekk bu fekkee àdduna kese tax ngay def kooku musiba la wa ma lahu fi l min nasib benn cër du ko fa am waxaat moom borom bi man kaan yuridu alxayata addunia wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum wa hum fiha la xam ne danga jublu dunduk àdduna kese ak taarub àdduna bii nga xam ne doomu aadama da koy gis mu neex ci xol lool nee na ñooñu nuwaffi ilayhim amalahum ni nga xam ne loolu lañ jëfe noonu lañ jëfe pour am àdduna noonu lañ leen di fayee fii ci àdduna waxum fiiha laa yubxasuun kenn du leen wàññi dara li ngeen jëf rek noonu lañ la koy fayee fii ci àdduna ginnaaw àdduna kese nga bëgg loo def ñu fay la ko mu teg ci ne ulaika alladina laysa lahum fi l axirati illa annaar ñooñu ñooy ñoo xam ne alaxira sawara képp lañ fa am wa xabita ma sanau fiiha wa baatilun ma kaanu yaamaluun nee na li nga xam ne moom lañ fi jotoon a def ci lu baax sax day màbb ndaxte lu ko waral mooy jublug àdduna kese kon ak jëf yoo xam ne boroom àdduna la ci bëgg jooju jëf sellut yàlla taxul jëf ji tax àllaaxira tax nga di ko def jooju jëf moo sell jooju moo tax moom la yàlla tax moo tax borom bi ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada koo xam ne da jëf jóg yaakaar ne yow mii am nga yaqin ne da nga dajeeg sa borom tabaraka wa taala nee na kooku na jëf-jëf ju baax jëf ju baax boroom xam-xam yi dañ laa wax ne moo di ju ñaari sart yi daje sell yàlla dong tax yoolub àllaaxira tax mu dëppoo ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu suñ amul rek suñ dëppoowul ci jëf ji rek jooju jëf gisu ko nangu kooku mooy sart ko qabuli al amal kon ku yaakaar ne da nga dajeeg sa borom fal yaamal amalan saalihan na jëf-jëf ju baax jëf diisul na saalix la mukk diisul na baax na lu dul si yàlla taxee mu dëppoo it ak na ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam defe woon mu ne wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada bu mu bokkaale ci jaamu boromam kenn li ngay def bul ci boole keneen na yàlla kese tax kon sell gi ngir mu am faw yéene ji la nga ci jublu day sell ndax jëf yi ci yéene yi rek la aju innama al amalu binniyat loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax wa innama li kulli imri'in ma nawa jëf yi ci yéene yi la aju bu yéene ji baaxee jëf ji baax la bu yéene ji baaxul jëf ji du baax kenn ku ne la nga yéene loola lañ lay fay moo tax borom bi tabaraka wa taala day fay ci yéene nit ki dana yéene dara bëgg koo def defu ko yàlla fay ko moo tax borom bi tabaraka wa taala wa yaxruj wax ne wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi summa yudrikuhu almawtu faqad waqaa ajruhu allah wa kaana allahu gafuran rahima ku génne sa kër gàddaay jëm ci yàlla faf fa nga gàddaayoon jotoo fa àgg fa faaf fekk yàlla dong nga taxoon nga gàddaay dëkk nga foo xam ne kéefër nekk gis nga fu ko tane ci wàllu ngëm yàlla nga jóg di daw di rawale ji sa ngëm yàlla àggagoo fa nga jëm fa faatu ci yoon wi nee na faqad waqa ajruhu ala allah nam ko bëggee woon ci yool rek amee na ko noonu kon kooku borom bi tabaraka wa taala yéene la fay foofu kon innamal amalu bi niyaat moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci xadis boo xam ne sahl bnu xanif radiallahu taala anhu moo ko jëlee ci yonente bi mu ne man saala allah alshahadata bi sidqin ballagahu allahu manazila alshuhada wa in maata ala firaasihi képp koo xam ne nee na ñaan na boroomam tabaraka wa li ñuy wax shahaada muy faatu ci yoonu yàlla ci biirub xare xare bi lislaam di défendre lislaam di ko xeexal ba faatu ca loola ku ko ñaan yàlla bi sidqin ci ak dëggu nag la wax nee na kooku ballagahu llahu manazila shuhada yàlla dana ko jottali darajey ña nga xam ne ñoo faatu ci xare ba am la ñu am ci yool wa in la ala firashihi donte sax ci kawub lalam la faatu it yàlla dana ko jox loolu xadis boobu muslim ak moo ko génne ak asxaabu sunan kon ndekete ñaan shahaada kooku mooy yéene ko yéene jooju su amee te dëggu jullit bi caaxaanu ci ñaan ko boromam yàlla dana ko ko may donte sax ci kaw lalam la faatu it dana ko yóbbu ba ca daraje ñooñu kooku borom bi tabaraka wa taala moo bari le lu ko neex lay may kon loolu nag du lu woyof nit ñu baree baree bari ñaan shahada lu diis ci ñoom la toog wéet foo xam ne yàgg sa borom tabaraka wa taala dong yéen a fa nekk mu lay fuglu di xam sa mbir di xam sa zahir sa baatin nga jàpp sa njàpp mu sell toog fi béréb boo xam ne wéet nga fa nga tàllal say loxo ñaan ñaan gu la ñor ne borom bi tabaraka wa taala na nga ma rey ci sa yoon wi may xeex di défendre sa diine ji ba faatu ci loolu ku sa ngëm dëgërul doo ko def ndax loolu day mel ne mooy nga ñaan faatu te fekk yaa ngi toll ci sa diggu doole loolu lu bari ci nit ñi ku sa ngëm dëgërul doo ko nangu ndax kay xeex fi sabilillahi kooka doole lay yor ci jihaad fi sabilillah kon foofu ab nattukaayu ngëm ci la bokk kooku ak sellal la goo xam ne ak sellal féetewu ko kaw loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala ku def lu mel noonu mu may la loolu donte sax ci sa lal nga faatu itam jëlee nañ ci Aïcha li lépp ay takkal yu wane ne la yéene borom bi daf koy fay Aïcha umul muminina radiallahu taala anha mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ma min imraati ma min imriin takunu lahu salatun bi leyl fa yaglibuhu naw illa kutiba lahu ajru salatihi wa kaana nawmuhu alayhi sadaqa nee na képp koo xam ne dafa baaxoo woon am waxtu wu muy julli guddi dinaa fil la yàlla dogal bis wala ay san nelaw nag ko ba yeewuwul ci waxtu woowu nee na borom bi tabaraka wa taala daf koy bindal lu toll ne la mu ko daan fay bi mu ko daan julli nelaw yooyu muy nelaw yoolub sarax la ko ciy fay loolu lépp ci ngëneelu toog gi mu doon toog ba njël jot ba guddi jot doomu aadama yi di nelaw moom mu bi di jullil boroomam tabaraka wa taala ci la amee loolu moo tax bi ko nelaw yi notee jógul ci waxtu wi mu daan jóg téewut borom bi tabaraka wa taala bindal ko loolu dollil ko ca ndollenul nelaw yi muy nelaw mu bindal ko ko yoolub sarax kon jóg waxtu guddi di julli lu am solo la kon jaadu na jullit bi jiima yar boppam ci loolu di jóg waxtu woo xam ne dana jiitu waxtu fajar julli loo man tàllal say loxo ko borom tabaraka wa taala ñaan yàlla defal la li nga ñaan ndax kat waxtu woowu moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ci borom bi di wàcc ba ci asamaan si féete suuf di wax ne ana kan moo may ma may ko kan moo may jéggalu ma jéggal ko kon kooku waxtu waxtu taatan la waxtu tàllal say loxo sa borom tabaraka wa taala la waxtu julli la waxtu ñaan la koo xam ne saxoo na loolu baaxoo ko moo xam nag la ngay julli bari na moo xam néew na waaye yaa ngay def sa kem kàttan kooku suñ borom tabaraka wa taala noonu la la koy faye bis boo faatoon itam ngir nelaw borom bi dana la bindal yool boobu ndax yéene ja ak dogu ga nga xam ne moom ga amoon ci fas ku yéene di ko def kon borom bi tabaraka wa taala dana fay yéene kon innama al mooy pas-pasub sellal su yéene baaxul sellal du am su yéene baaxee sellal door a mën a am léeg-léeg sax jenn jëf yéene dana tax mu doon ak jaamu yàlla yéene dana tax mu soppi ko aada bañ nekk ak jaamu yàlla buñ jëloon ci loolu misaal ku toog ci jàkka rek fekk jàkka ji mu toog li mu fi yéene mooy li ñuy wax li ci xeetu jaamu yàlla la woo xam ne xam ngeen ko wala toogaay bi mu toog ci jàkka ji déglu xam-xam a tax mu def ko rafetal yéeneem kooku toogaayam boobu ci jàkka ji daf ci am yool ibaada la ak jaamu yàlla la waaye su dikkoon toog ci jàkka ji rek <coughs> fekk li ko andi ci jàkka ji mu toog si mooy day féexlu si dafa dox a dox daal wala mu nekk ci liggéeyam ba mu yàgg jàkka ji ker la mu ñëw gis want la tër yi tàkk mu ne naa fi toog féexlu tuuti door a jàll kon kooku du ibaada te kat bi toogaay bi rek waaye li ko séparé ba lii doon ibada li ci des nekk aada lii doon ak jaamu goo xam ne da ci amub yool lii doon aada joo xam ne yool amu ci mooy yéene yow mi dikk di xool ci kaw rek mënoo leen a xàmmee mbooloo mi toog mënoo xàmmee kii li ko indi ak teel ko indi li ngay xam daal mooy ñoom ñëpp bokk nañ toog waaye nag lay yéene ya seen diggante seen borom tabaraka wa taala rek moom moo ko xam <coughs> loolu moo tax moom rek mooy yeyoo fay moom mi xam la nit ki jublu ci dara kooka moo war a fay léeg-léeg da ngay dégg nit ñi juum lu bare bare bare bari fay sax yomal xiyaam ñi di ko askane nit diw dana la fay diw mënta xam li nekk ci sa xol ndax sell na wala sellut yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baaxam ba àgg fépp foo xam ne beneen doomu aadama àggu fi moom ci boppam dafa seedeel boppam ne xamaluma sama bopp dara xamaluma leen dara ka xam la nga xam ne mooy jax-jaxi ci sa xel ak ci sa bakkan ak ci sa xol kooku mooy këla bind kooku mooy yeyoo nga jëf-jëf mu xam ne lii sell na am nga ci yéene te jotoo koo jëf sax mu fay la ci yéene nga loo xam ne safaan la mu xam ko kooku borom bi tabaraka wa moom moo ko yeyoo kon loolu moo tax suñu borom tabaraka wa mooy fay cangaay buñ ci jëloon misaal koo xam ne dafa sangu cangaay loo xam ne farataa ko waral sharia moo ko ko digal mu sangu ko moo xam cangaayul ajjuma la moo xam cangaayul janaaba la moo xam cangaayul aj la wala nu mën a demee sangu na cangaay loo xam ne xeetu jaamu yàlla la yéene ci loolu kooku ibaada la daf cay am yool waaye su cangu woon ngir set sangu rek ngir yaramam set bëgg a féex kooku aadala la ci am lu ci am yool ak nu mu ko mën a sangoog ko mën a toftalee ak lu mu nuru nuru sax nag cangaay lu sharia diglee loolu du tax mu am ci yoon lu dul yéene ji yéene ji dafa am yéene mooy tax mbir mi nekk ibaada yéene mooy tax mbir mi nekk aada su yéenee ibaada jaamu la cay am su yéenee aada kooku du ci am ak jaamu yàlla sellal nag dafa am ay màndarga yu koy wane yu wane ni nit ki li muy def sell na waxuñu nga jóg ci yow ngir nga nattu nit ñi ba xam ñu ngi sellal wala sellaluñu waaye nga nattu ci sa bopp ba xam yow yaa ngi sellal wala sellaloo lu am solo bokk na ci mandarga yooyu nga xam ne ci la nit ki yégée ne moom sellal na soxul mari bi diinihi nit ki dafa war a nay ci diineem jëmmi diineem du nangu dara dara dara lu toll ne tarfatu ay ni jóg ci lim xas xam mu doon lu wér sax ci téere bi yàlla bi sax ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi daf ci xër jafandu ci jafandu bu dëgër a dëgër goo xam ne du nangu dara manqué ci du ci nangoo dellu gannaaw la koy joxe mooy xadisu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ba muy lim ñi nga xam ne seen ngëm danañ mos neexaayu ngëm yàlla daf cee boole ah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yuqsaba fi nnaar day bañ a dellu ci kéefër gannaaw boo xam ne yàlla musal na ko ci bañ a dellu ci bidaa gannaaw boo xam ne borom bi tabaraka wa taala musal na ko ci bañ a dellu goo xam ne ni muy bañe ku ko sànni ci sawara jël ko ku ko taal ab séeb bu sànni ko ci biir ni muy bañe loolu noonu lay bañe ku ko delloo ci kéefar ak ay caaxaan gannaaw boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala musal na ko ci loolu kon bokk na ci màndargay sellal jullit bi sellal diineem jaral ko dana ko jaral bakkanam dana ko jaral alalam dana ko jaral waxtoom yooyu mënta kon faaw jullit bi nay ci diineem ni ñu koy tudde sa diine moom da nga ci war a nay yi ci des nga war a tabe waaye diine ji bul nangu dara jóg ci bu ci mayee dara bul dellu gannaaw bul yox yoxi bul ragal jàpp ci bu dëgër loolu mooy melokaanu koo xam ne ixlaas mi ngi ci xolam nga xam ne muamalaam ci muy jëflanteel mooy boromam tabaraka wa taala jëflante wut ak doomu aadama yi ñaareel bi alxadar min didd al ixlaas na wattandiku li safaanoo ak ixlaas contraire am loolu mooy naafiq gu mag ak naafiq gu ndaw li dul li juuyoo ak sellal safaanoo ak moom loolu mooy naafiq gu mag wala naafiq gu ndaw naafiq gu mag wala yaasu billahi ni ko ibnu kasir waxee daf ne annifaaqu huwa izhaaru alxayri wa israaru alchar naafiq nee na mooy nga feeñal lu baax te fekk la nga nëbb lu bon la loolu nag lu yaatu la feeñal kéefër fekk feeñal lislaam fekk kéefër la nëbb feeñal sunna fekk bidaa la feeñal lu baax ci xeeti yiw feeñal tabe fekk naye nga ca xol feeñal ay nangam lu baax lépp lu nit ki di feeñal fekk ma nga nëbb safaan ba kooku naafiq la ibnu kasir mu ne wa huwa nawaani nee na ñaari xaaj la ictiqaadiyun wa huwa alladi yuxallidu saaxibahu fi naar abada nee na benn bi pas-pas la bu ne ci biir xol naa féquk xol naa féquk pas-pas nee na kooku mooy koo xam ne ki ko faatuwaale day sax ci sawara ba faw te du ko génn wala yaasu billah yàlla na ci yàlla musal mooy fas kéefër ba noppi feeñal lislaam kon kooku du mucc mu ne waa amaliyun wa huwa min akbari dunub beneen naafiq bi ci def mooy nifaaq amali lañ koy wax mooy naafiqu jëf kooku moom la ñuy tuddee ngistal mooy naafeq gu ndaw moom la ñuy tuddee annifaaqul asgar wala ashirkul asgar te teewul nag ci akbari dunub ci la bokk ci kabaayir yi ci la bokk moom moom ngistal ngistal nag mooy lan mooy izhaarul amaali saaliha amaama annaas fa ida gaaba anhum amila bi naqidi dalik mooy koo xam ne bu teewee ci biir nit ñi jëf-jëf yu rafet ngir nit ñi koy gis bu wéetee def safaan ba su fekkee julli la rafetaloon ci kanam nit ñi bu wéetee bay julli ci boppam moom dong day këpp këppal daal di sëlmal ci lu gaaw bu feeñalee aw yiw aku mbaax di la tagg ci sa kanam bu wéetee wax la safaan ba kon waliyasu billahi nifaaq amali kooku mooy ngistal ngir am wu rafet fa nit ña diw mën a jaamu yàlla diw baax diw de moom ni mu bare yitte diw nangam nangam xeeti tagg yoo xam ne yaa leen ko wan ci seeni jëf te fekk nekkul ci biir nekkul ci xol bi kooku musiba lu mu a bàyyi xel la ndax ndaxte day yàq ixlaas day yàq ak sellal lu jafee yar bakkan la nag ba mu mucc ci bokk na ci yi ciy yar bakkan bi ba mu mën cee mucc fexeel ba si jaamu yàlla yi ngay def fu kenn nekkul fexeel ba mu gën a rafet yi ngay def fi nit ñi nekk jéemal loolu ku nekk mën na ko fexeel ba boo tëjoo ci sa bokk bu lëndam boo xam ne yow dong yaa fa nekk yëg ne sa borom a ngi lay contrôler mi ngi lay seet di la xool di la gis xam li ci sa xol xam li ci sa xel di gis li ngay def fexeel ba su jëf yooyu gën a rafet yi ngay def boo julli woon ba sëlmal jóg di def sa ñaari rakkaat ci kanam mbooloo mi ñu taxaw di la xool nañu lay gisee fexeel ba la ngay def soo wéetee gën a rafet loolu kooku boo ci tàggatoo ba say cër miin ko sa xol tàmm ko ab départ la ngir jëm ci ixlaas yàlla na ci suñu borom dimbali ñaari naafiq yooyu nag ñu jegee lañ naafiq gu mag gi ak gu ndaw gi maanaam naafeq yi génne nit ki ci lislaam ak naafeq yi nga xam ne xeetu ngistal la moo tax borom bi tabaraka wa taala dafay wane ne gu mag gi ki ko bindoo faw ab ngistalkat itam lay doonaale maanaam day yoraale naafeq gu ndaw gi ñu ngi wax inna almunafiqina yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum wa ida qaamu ila alsalaati qaamu kusaala yuraauuna annaas wala yadkuruuna allaha illa qalila kooku ci melokaani naafeq yi la bokk nee na ñooñu dañuy jiima war yàlla waaye yàlla nax na leen yàlla kenn mënu koo nax moom boo jiimee nax yàlla sa bopp ngay nax nee na ñooñu bokk na ci seeni màndarga bu ñu jógee jëm ci julli ak tàyyeel la ñuy àndal te it dañuy gistal yuraa'uuna naas li ñuy def nit ñi lañ koy won kon naafiq bu mag la waaye mi ngi jëfandikoo melokaan yi naafiq gu ndaw gi naafiq gu jëf mu teg te ne walaa yadkuruuna allaha illa qalila seenu tudd yàlla nee na lu néew la tudd yàlla lu yaatu la zikkar a ngi ci zikkar yi rot jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàgg alquran a ngi ci biir tànn ñaan yi rot ci biir alquran a ngi ci ñaan yi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp ci wax yiw yi la bokk su fekkee ne wér na ne nit ki da koy def ngir boromam tabaraka wa taala jéebtaanewu ko wanewul nit ñi ngir ñu xam ne moom ab zikkarkat la wala tuddkatu yàlla la waaye bi muy tudd yàlla boromam moo tax mu di ko tudd jarul yëkkati baat jarul takk ay haut-parleur nga dem ba ci sa béréb boo xam ne bu wéet la nga toog ko di tudd sa borom tabaraka ko taala kooku danañ xam ne yàlla moo tax ngay tudd sa borom tabaraka wa taala kon ay mbirankoog yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la kon tomb bu njëkk bi ci yi tax nit ki ñu xam ne sellal na kon mooy na nay ci diineem ñaareel bi na wattandiku safaanu kon naafiq ñetteel bi assururu bil xasana yarxamukallah assururu bil xasana mooy mu bég su fekkee ne def na lu baax loolu ci màndarga yi wane ni nit ki ku sellal la kuy jëflante diggante mu boromam su defee lu baax julli na ay julli war na weeru karu ba mat euh, joxe na aw yiw dimbali na ko sonn yooyu su ko defee ba àggal day yëg ci xolam mbégte moo xam ne daf koy jañ poussé ko ngir mu gën a def yiw ngir mu gën a def lu baax ngir mu gën a joxe fi sabilillah bu fekkee joxe la ngir mu gën a dolli ay jaamu yàlla mu fekkee ci wàllu jaamu yàlla la ngir mu gën a jokk ak boppam bu fekkee ci wàllu jokk bokk la ngir mu gën a fonk ki nga xam ne kom war a fonk la rafetal jëme ci ay waajur mu gën ko yokk su defee lu baax ba noppi daal day yëg ci xolam ne moom lii mu def alhamdulilah sama xol sedd na ci loolu jañ ko bu ëllëgee mu jéem kaa góorgóorlu kooku ci wone wane ne nit ki sellal na waxuma nag ne da koy wan nit ñi waaye daf ko koy wan moom daf koy yëg moom ci boppam kon ko yëg-yëg la ñeenteel bi wal i'timaamu bis sayyi'a su defee lu ñaaw daf ciy am aw naqar ay fan mel ni ku feebar ngir nekk am na mooy yàlla gu def boo xam ne yëg na ne moom def na ko wax na doomu aadama lu jaaduwul jëw na ko gàttañ lu na ci jàng alquran julliwut ci waxtu wa def na lenn ci xeet yi nga xam ne xeeti càggante la loolu day nekk ci xelam ak xolam mu di ci yedd boppam ay fan loolu képp koo xam ne yaa ngi koy yëg ci sa bopp kon mën ngaa rafet njort ci sa ci ne sa boroom nga tàmbali nga nag di jëflanteeg sa borom te loolu mooy buntu buntu lixlaas moo tax ci xadiis bu ibn Xataab radiallahu taala anhu bu jëlee ko ci yonent bi daf ne man sarrathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min koo xam ne nee na bég nga ci sa jëf ju rafet am ngaw naqar ci sa jëf ju ñaaw nee na kooku gëm nga yàlla ndax kooku yëg-yëg la boo xam ne ci biir xol bi la nekk foofu njistal àggu fa lu baax li nga def ba noppi yëg ci sa xol kontaan ci li nga def waxtu wi ma yeewu bi julli ko alhamdulilah sa diggante sa bopp waxuñu sa diggante nit ñi koo xam ne yow dong yaa ko julli sa julli ñaan fa say ñaan te fekk fajar jotugu nit ñaa ngay nelaw nga jaamu sa borom tabaraka wa taala xëy yëg mbégte ci loolu kooku rafetal njort ci sa sellal bàkkaar boo xam ne bi nga koy def yow dong yaa ko def keneen yëgu ko mu takkoog yow aw ay fan def la lu mel ne tawat rafetal njort ci ne sa diggante ak sa borom tabaraka wa taala mi ngi mi ngi tàmbalee sell sa borom tabaraka wa kon loolu mooy tomb bi jëkk ci loo xam ne jullit bi war na koo yóbbuloo mu di sellal ñaareelu tomb yi moo di tanzimu kitaabillahi taala màggal nag téere sun borom tabaraka wa taala muy alquran xam ngeen ne ci kaw suuf alquranul karim moo fi ab téere boo xam ne da nga koy yëkkati ni kii mi ci nekk lépp wax sunu borom la tabaraka wa taala du waxi mbindeef waxi yàlla la bi maanaam melokaanu sunu borom tabaraka wa taala moo ko wax jox ko malaayika muñ wóolu ku nekk amin mu di jibril comme nazala bihi ruuxul amin wala nazala bihi ruuxul amin mu di jibril bi nga xam ne moom la mu jox ko ko mu dikk jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala qalbik di ko wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mooy alquran al karim ki ko jëkk a màggal moo di suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne walaqad aataynaaka sab'an min almathani walquran alazim walquran alazim yàlla nee na ko wàcce naa ci yow juróom-ñaari aaya yi nga xam ne moo di suratul fatiha wàcce ci yow alquranul karim alquran ju màgg ci noonu la ko yàlla tudde wal quran al azim màggal alquran nag ci ni muy amee moo di jàng ko xam ko jiima jëfe la ca nekk loolu moo jiitu ci màggal alquran moo tax ci xadis boo xam ne buxaari ak muslim ñoo ko génne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ne laa xasada illa fi snatayni rajulin ataahu allahu hada alkitaba fa qaama bihi aanaa alleyli wannahaar wa rajulin ataahu allahu maalan fa huwa yatasaddaqu bihi aanaa alleyli wannahaar nee na ñaar donga mat a ñee ñaari nit ñoo mat a ñee ki nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo jox alquran mu di ca taxaw di ca naafila guddi di ko jàng fa xaama bihi di ci naafila guddi di ci naafila bëccëg taxaw di ko jàng guddi ak bëccëg ka ca des mooy ki suñu borom tabaraka wa taala joxe jox alal mu di ca sarxe ngir bor ngir yàlla guddi ak bëccëg nee ñaar ñooñu ñoo ñee fii ci dundug adduna bi kon fa qaama bihi ana al layli wa nahaar kon alquran bi ki ko yor am naw sas waxuñu ki ko yor nag ci mokkal alquran bi lépp waaye ginnaaw mokkal nga ci alquran dara rek sas wi war na la war ngay jóg dinaa fi la ci alxuraan ji guddi ak bëccëg war nga ci yor sa dog boo xam ne bés bu ne nga jàng ko boo xam ne dara du ko war a mën a faat loolu jullit bi daf ko war a saxoo kon màggal alxuraan ci jëfe ko la nekk ak jàng ko bokk na ci màggal gi ñu koy màggal bu koy jàng na laab bul soxlaal sa bopp nag ci ñu naan la laab gi war na wala warut wala dañ ko sopp wala ñu ko laabal yow booy jàng alxuraan fexeel ba laab sag laab ñaareel ba soo jàngee ba xam jàngalal keneen ki gën ci yéen mooy ku jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale loolu la suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax suñ boroom waxub yonentam ne ko yaa ayuha rasulu balligh ma unsila ilayka jottali lii ma wàcce ci yow wa in lam tafaal fa ma ballagta risalata su fekkee ne defoo loolu jottali woo ko nee na kon li la taxoon a jóg li taxoon ñu yebal la yebal la kon defoo ko Hmm? kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci moom la jëm jàpp naa ne jullit bépp benn bu ne it jàpp na ne bi sallallahu alayhi wa sallam jottali na lépp loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala wàcce na ko ci moom jottali na ko xeet bi ba xeet bi jot na ci ñetteel bi ci màggal alquran mooy al ictimaadu alayhi wa ala sunna fi daawati ila bi diin ki nga xam ne day woote jëme ci diine gannaaw boo xamee ne xam na mi ngi jëfe di góorgóorlu di jot li jot leem googu na ko sukkandiku ci alquran al karim boole ko nag ak sunna mi nga xam ne dafa ñëw ngir leeral alquran moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wax ne wa uxiya ilaya hada alquran li undirakum bihi wa dañ maa wax yu alquran bii ngir su ma leen di xub ma xub leen ci alquran bi li undirakum bi wa man balax ak képp koo xam ne alquran jot na ko ci biir alquran ci lañ lay xuppe kon woote ci alquran ci biir alquran nga koy sukkandiku lay wi nga xam ne moom la ñu war a jox doomu aadama ñu ne aw lay taxaw na ci kanamam boo xam ne amatutu lay ca kanam boroomam kooku mooy alquranul karim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu bare bari ci nit ñi dañ lay wax ne nun léegi noo ngi dund ci jamono joo xam ne mbir mi àgg na foo xam ne technologie bi affaire bi nit ñi àgg nañ foo xam ne boo taxawatee naan leen yàlla nee na yonent bi na du la déglu da ngay ñëw wax ak ñoom ci philosophe bi nga xam ne moom lañ gëm wax ak ñoom fiñ toll wante fekk na loolu soo duggee ci wax waxtaan ak ñoom sa waxtu dana sànku te doo àgg ak ñoom fenn ndax loolu la nga ci xam ba tuub xam nañ ci lu ko gën a xóot loo leen wax benn boo leen jox ñu tegal la ci yaar te nag kenn sant la loolu néewuñu la dikkal nga weranteeg ñoom ci la ñu jàng ci ay dalaalaat fa ñu nekk ci ak réer néewuñu la nga jàng ko ngir weranteeg ñoom ci biir réer ga waaye dañ laa wax ne xamal téereb sa boroom xamal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam booy woote nga woote ci yaar yooyu waaye leneen loo woote loolu lay wa man mën ngaa wax a wax ba jeexal tàkk waa ji jóge fa dem yoonam te fekk layul islam ci boppam taxawut ci kawam waxee su ko la yàlla wax dégg ko cim xelam baax tam dégg alquran yooyu yi ñuy wax yépp alquran làmboon làmboo na ko ñépp layu xel woo xam ne wuy jubbanti xelam doomu aadama mu sell mu mucc moo xam ne borom dofut ka nasuut woo walaay ngi ci biir alquran alquran day wax ak xel di wax ak xalaat di wax ak ci xeeti développement ak i xew-xew yoo xam ne yu ak see gut la yoo xam ne nit ñi dañuy jëfandikoo lañ ca fekke rek lañ ca fekkiwu fekkiwuñ ko saa bu ñëwee ñu xam ne ñëw na bokk na ci yooyu ci màggal alquran xifdu xududihi wa axkaamihi wa ilmu xalaalihi wa xaraamihi gannaaw boo xamee ne xam nga li lew ak li dagan li dagan ak li dëgganut ci alquran muy xam nga attey alquran nga wattu nag frontières yi nga xam ne moom la la alxuraan tëral ne la yemal fii nga yem foofu bañ koo jéggi maanaam defal lam ne moo baax lam ne moo bon bàyyil bul def bokk na ci yooyu tabjilu ahlihi wa tawqiruhum taalama azamuhu wa qaamu bi xuquqi bokk na ci màggal alquran nga màggal ñooñ alquran ñi nga xam ne dañoo jàng alquran xam ko li feek ña ngay góor góorlu di jëfe alxuraan ñooñu da nga leen war a màggal fonk leen ngir alxuraan bi nga xam ne moom lañuy ñuy jëfe bokk na ci fonk alxuraan nga fonk leen ñoom ñooñu li gën a màgg nag ci màndarga yi màggal alxuraan moo di bañ a gàddaay alxuraan bañ a gàddaay alxuraan gàddaay alxuraan nag ay xeet la ibnul qayim boole na ko ci ay bind yu gàtt neena na hajarul qur'aani anwaa gàddaay alquran nee na ay xeet la axaduha hajru samaacihi wal imaani bihi wal israai ilayhi nee na bi ci jëkk mooy nga gàddaay di déglu alquran fu ñu koy jànge sax doo ko bëgg dégg lu aju ci gëm jii moo gëstu ba xam lan nga war a gëm ci alquran kay wax lu aju ci alquran doo ko déglu nee na kooku mooy gàddaay gi ci jiitu mooy musiba mi ci gën a rëyit nag athani hajru alamali bihi walwuqufi inda xalaalihi wa xaraami wa in qara'ahu wa amana bihi nee na ñaareel bi mooy nga gàddaay jëfe alquran lam ne moo dagan nga ne moo dagan lam ne moo xaraam nga ne moo xaraam nee na ki def loolu gàddaay na alquran donte sax mi ngi jàng alquran gëm na ko it waaye jëfewu ko nee na kooku dafa gàddaay alquran alkarim althalith hajru taxkimihi wa taxaakumi ilayhi fi usuli diini wa furuucihi wa ictiqaadi annahu laa yufidu lyaqin ñetteel ba nee na gàddaay ci alquran atte lépp lu jaxasoo ci seeni mbir ci xeeti gàddaay ci alquranul karim nga jëbale ko ci moom loolu moo di ku gàddaay alquran atte woowoo alquran bëgguloo koo atte woo defe nga ne munta atte jamono ji sax far muñ la ko waxee ku toll foofu nee na ci ñi gàddaay alquran yi ci nga bokk mu ne war raabi hajru tadabburihi wa tafahumihi wa maarifatu ma araada almutakallim bihi minhu ñeenteel bi nee na mooy nga gàddaay jéem koo settantal jéem koo xam jéem a dem ci ku la ko jàngal ku la ko firil déglu fu ñu koy firee nee na ci def loolu dafa gàdday alquran ndax dafa war a jéem a xam liñ bind ci moom ngir mu mën koo xam képp koo xam ne bind nañ la leetar du ma la wax sox ne ki la bind leetar président la wala ku la mën a bindub leetar ku mën a doon ginnaaw yow lañ ko adressé bu ñëwee nga jot ci lii sa itte ju jëkk mooy jàng ko ba xam borom leetar bi lu mu wax loolu moom doomu aadama bi moom lañuy ñuy dund alquranul karim yàlla jox ko lu toll ne malaayika mu wàcce ko ci lu tol ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di dund ci biir nit ñi ñaar fukki at ak nangam ngir di jottali alquran jooju mu jóge fi saxaaba yi jottali ko tasaare ko ba mu ci nun nu doon ay jullit ci sababos alquran jooju ak sunna soosu ñu tasaare ci suñ biir kon li war a gën a itteel jullit bi moom mu yëg ne téere bi moom ci moom la jëm si faw war naa xam li ci boromam digle ak lim ci tere ngir mu jëf nit ñi dañoo def ne jàng alquran mooy nga dal lu bari da ngay dégg ci nit ñi wax booy booy déglu léeg-léeg da ngay dégg ko naan man jàng naa alxuraan def naa nii defe ne loolu mooy nga dal rek alxuraan jaare woon na ci alxuraan yi dalal ko mu jàng fa ay at ñu door koo dugal école mu jàng ba mag danaan moom jàng nan alxuraan kenn mënu noo wax ci diine ji lu mu xamul waaye du noonu alxuraan bi ci boppam da ko war a jàng xam li borom bi tabaraka wa taala wax su ko defee ci biir loolu ci ngay mën a jariñoo ci alxuraan ci ngay mën a muccee ci gàddaay alxuraan والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره juróomeel ba nee na mooy nga gàddaay saafarawu ci alxuraan ci mboolem feebari xol yi tawati xol yi ngay xam ne mooy dal doomu aadama yi bokk na ci feebari topp sa bànneex feebari top sa xalaati bopp feebari top ña nga fi fekkoon te xamoo ci njub lañ nekkam déet feebari ci biir bidaatu nangu woo cee génn feebar yooyu yëpp nga xam ne day dal xolu doomu aadama feebaru bëgg adduna feebaru ragal jihaad fi sabilillah nee na xeeti feebar yooyu nga xam ne day dal xoli doomu aadama yëpp alquran day saafaraam ki nga xam ne nag dafa gàddaay alquran bàyyi ko fi di wuti saafara ci leneen lu dul alquran nee na kooku dafa gàddaay alquran mooy lu mel ne li ma la doon wax léegi ñi la naan léegi nit ñi nga xam ne dem nañ ba àgg ci niveau sàngam waree su ta wax ak ñoom ci alquran dañoo war a wax ak ñoom ci leneen ngir dugal leen ci diine ji ñooñu ñiy wax loolu loolu ak gàddaay alquran la wala yaasu billah kon tomb ñaareel bi ci yóbbal bi kon moo di màggal alquranul karim ba jiitu kon mooy sellalal sun borom tabaraka wa taala ñaareel bi mooy màggal alquran ñetteel bi mooy mahabbatu annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa taasimu sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko fonk ko màggal ko yonent bi moo di akbaru minnatin man allahu biha ala almuminin xéewal gi gën a rëy ci xéewal gi sunu borom tabaraka wa taala yónnee jullit mooy xéewal gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne laqad mann allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin mu ne yàlla defal na leen xéewal laqad mann allahu ala almuminin ñi gëm yàlla nee na yàlla defal na leen xéewal xéewal gi mooy laa mu ne is baasa fihim rasulan min anfusihim moo di mu yabal leen leen ab yonent boo xam ne ci seen biir la jógee maanaam nit la mënoon na leen a yabalal ab yonent boo xam ne malaaka lay doon la muy mën a wala la muy mën a muñ wala ya muy mën a bàyyi du ngeen ko mën a bàyyi su boobaa ngeen amul ay ngeen ne anoon ah, kon bi ñu ne yabalal wax dëgg li muy def mënunu ko ndax malaaka la wala muy leneen ci xeeti mbindeefi yàlla yi ko soob yi bokkut ak doomu aadama bu ko neexoon noonu lay def waaye suñu borom tabaraka wa deful noonu daf ne min anfusikum koo xam ne ci seen biir la jóge di doomu aadama yor ñaari tànk yor ay loxo yor cër yi ngeen yor di yëg lu metti di feebar di denc ay soxna di lekk di xiif di naan di mar di mandi di faatu di feebar di faatu kon kooku moo gi yéen yéen a bokk ak ak ndoom aadama hmm? qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilay léegi man mbindeef laa moo xam ne comme yéen mbindeef laa comme yéen waaye nag dañ may wax yu kon loolu moo leen wutale ak yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam kon xéewalug yàlla la mu mel ni nu mel ñëw di def li nuy def ndax ci biir loolu ci lay mën a leerale diine ci su fekkoon ne dañ ko binde neneen bu ñëwee di jullee noo xam ne mënoo ko doo mën a jullee noonu bu dee wooree noo xam ne mënoo ko doo mën a wooree noonu waaye dafa ñëw doon koo xam ne ni mu la bindee noonu la ko bindee ngir mu def loo xam ne dañoo bëgg nga def ko dañoo bëgg mu nekk sa modèle boo xam ne moom ngay roy kon mu ne kon yàlla defal na leen xéewal yéen ñi ko gëm ngir yónni jim yon ci yéen ab yonent boo xam ne ci seen biir la jóge yatlu aleykum ayatihi wa yuzakkihim mu di leen jàngal ay alquran di leen sellal di leen jàngal alquran ak sunna yuallimuhum alkitaba wal xikma te fekk lu jiitu loolu ñu ngi nekkoon ci réer bu metti kon loolu da nga ci jëriñoo ne képp koo xam ne jàngagul alquran ak sunna mi ngi ci ak réer ba ba mu koy jàng saa bu ko jàngee ne gindiku gindiku xam-xam su ko jëfee nag mucc ci dalaal maanaam jubbantiku